waaw d' accord. jërëjëf Oustaz bu fekkee da ngaa sopp Seex Bass Abdou Khadre fexeel ba. waaw lu nuy wax ci diine ji amoo loo ciy diine yow ci dara yow. nel tekk déglu. waaw jërëjëf yaa ngi dégg. waaw mais mënu ma man saa yu ma waxee rek. nga naaw. bu ko mais bu ko gàmmu. eh. wuy leen ma direct lañ ne de. waaw direct la waaw chaque jour nag lii laay dund nag ah, direct lañ ne ah, jërëjëf oustaz ñu ngi lay remercier ci ah. leeral yi nga indi xam naa ne dinañ ñëwaat ci yow ci kanam ku tedd gi def alors euh, soxna si moom euh, loolu ndooy dama bëggoon ñëw ñu dugg un peu ci euh, wàllum famille mm-hmm. buñ ne famille yaay papa jëkkër jabar mag rak donc lépp ngi ci biir mm-hmm. alors tey dañu gis am na du ñëpp nag waxuñu ñëpp waaye am na mm-hmm. ci ñoo xamante ne Euh, xëy na je pense que comme ni ñuy waxee yaay kenn amul fayam. yaay moom defe naa ne ci kaw lañ ko war a teg moom mooy ren dee ren. Mhm. donc loolu je pense que kenn dootu ko werante waaye dañu gis ci ñenn ñi xëy na euh, foofu xëy na ingratitude day dugg. Mhm. mooy que nga am sa jabar xëy na nga jël lépp féetale ko ko ba fàtte sa yaay lépp lu nga xamante ne waroon nga ko defal sa yaay yow daal sa yaay. faale woo ko lijjanti woo ko xamoo ne sax amaana mu ngi dund mhm. nga jël sa yabar yéegal ci kaw mhm. teg ko ci sa kaw yaay ku koy def soo dee footballeur nga équipe booy football mooy jël ndaare <laughs> waykat yaa ji gën a dellu ginnaaw fekkee waykat nga <laughs> journaliste nga yow su loo wax journal kenn du ko dégg yaay mooy nim ndombo wan ci commencement ba mooy fin ba mhm. ku ci nekk nag dafa am place kooku que mën nañ ko ne dafa ingrat dafa bien sûr sa yaay ëmb la juróom-ñeenti weer wasin la di la nàmpal ngay ngay ngay ngay tuur dugub muy raxas ngay tuur ndox muy raxas di la tette ba nga nekk magum jël sa jabar teg ci kawam nga dem nga dem ba ba jig voilà wala loo mën sa sa yaay mënoon a judd mu xoj la nga dee nga mënoon a toog oto yi maanaam lu nekk mënoon la daal bi nga nekk xale sa yaay dindi yooyu yëpp tette la ba nga nekk magum jëmm nit gis la bëgg la tey ji xoola li difficulté bi nekk ci soo duggee école ba di ngay amee bac soo amee bac am na ñoo xam seen yaa waajuru góor dafa bàyyi wàcc liggéey mm-hmm. bàyyi ko bàyyi bàyyi fi njaboot yaay ji jaay caaf ji jaay lu nekk pour nga am kaye problème la mm-hmm. yaay jooju nga dem jënde ko jigéen mm. di nga saxaar waaye doo tàgg mm. billaahi di nga dëgg di nga di di ngay doxal nga gis affaire yi mel ne luy neex nga waa nga waa sa jabar ji am na ñoo xam ne dañoo bàyyi seen yaay ci dëkk ba mm-hmm. ñëw fii ndakaaru toog fi wan seen ginnaaw seen seen tabaski ba tabas la ñuy gis seen yaay wala seen papa am na ñoo xam si seen papa gaañoo wala seen yaay gaañoo fii lañ koy dëjalee ndax defaluñu seen bàyyi dara defaluñu seen yaay dara te dëkkuñu ci dëkk bi loolu manque de reconnaissance xanaa xamu ne problème mu Sénégal gii mu gars yi dañuy wax naan ay état ba ñëw état état du affaire état de suñu biir kër yee xumb <laughs> suñu biir kër yi Sénégal biir kër yi tout le temps ma wax ko biir kër yi dafa xumb trop mm-hmm. manque de reconnaissance bi am ci biir kër yi moodu moodu yaa ngi dee mm-hmm. ñooy jënd ay saaku ceeb te duñ ca ñam tabax kër te duñ ca fanaan takk jabar dugg ca yor ca yaay yor ca papa yor ca ay frère mm. te ñooñu ñuy defal loolu amuñu benn reconnaissance mm. lu bon lu ñu dégg ñoom la lañ koy wax di leen liggéey di leen def yu bon mm. su seen bàyyi deewee nag des fois dafa am kër yoo xam su sa bàyyi dee ba ñu war a miraas miraas mhm. ma foofu ngay gis ay musiba mhm. musiba yu tribunal demal ay bon ñuy bokk ndey ak bàyyi ñoo fay nekk di ko ci wër ay nit ci kaso mhm. Sénégal dafay nekk am du miraas séddoo la dañuy séddoo te miraas histoire dina ci miraas ak du benn di defante yu bon a bon yu bon yooyu ñuy defante ci biir kër yi moo génn ci mbedd mi génn ci ëtt bi diggu ci entreprise dugg ci ministère yi dugg partout defante yu bon yooyu ci mhm. biir kër yi dañ ko jàngee loolu manque de manque de reconnaissance bi gën a garaaw nag mooy nga jànge dugg école Sénégal mhm. jàng fi ba terminal <laughs> état may la bourse nga dem bitim réew. liggéey fa liggéey fa toog fa war war sa réew. loolu manque de connaissance envers ton pays yooyu <laughs> war a réew di fayeeku ay millions. mënu mhm. koo am Sénégal di ñu bisi Sénégal nga naan war lan la nekkee war non waxuñu ko mu ñibbi non waxul loolu. dafa ne koo xam ne euh, dëkk bi état bi moo dëkk bee la fayal nga jàng. dëkk bee la yóbbu la ba tey li nga am. yëpp yaa fayal sa bopp kay yaa ngi tooñ. yaa ngi tooñ. <laughs> <laughs> jërëjëf jërëjëf Ndoye nañ ñëwaat ci yow Pendo Alima maa ngi ñëw c'est que question bi daf may intéressé ci ci ci Modou parce que xam nga moom dafa xaw a spécial tuuti voilà mm. alors Modou même question bi mu posé euh, Ndoye laay indi ci yow